asalaamaaleykum samay abonné bu leen di fàtte di abonné wu ci seen bi may ko doole Atlético Madrid ak Real Madrid bu ñuy dajee di yomb mu nekk bi mais mu nekk match boo xam ne nii soog lay doon diggante Atlético Madrid ak Real Madrid te nag Atlético Madrid dafa ñëw ak confiance mayul dara Real Madrid tey tey ñëw football match bi yëpp. mais Alaba yow tamit défenseur boo xam ne ni yow tey am nga expérience nga taxaw di seetaan morota mu mbëkk bu dugal boo xoolee lii muy ñaari yoon mu muy dal défense su Real Madrid dañuy seetaan attaquant yi ba ñuy mbëkk défenseur da ngay défendre te da ngay bàyyi xel attaquant de pointe bi bàyyi xel attaquant yi boo xoolee bii bi nu mu duggee. bii bu facile la tey nag Atlético Madrid dafa ñëw ak confiance te atletico Madrid il faut Real di ko bàyyi xel ndax saa yu muy tas ak Real même bu fekkee ni nekkul ci forme même bu fekkee ni équipe bi baaxul dee wane boppam diggante moom ak Real Madrid ko Real match yu mel nii daf ko war a sóoraale Real ñi ngi ci problème ah parce que tey bu ma ne problème dafa am lu tax ma ne problème. boo xoolee City dafa renforcer équipe am boo xoolee barsa dafa renforcer équipe am Atlético Madrid bi ngay gis ni dafa renforcer ndax poste bu ne am na doublure Barça loolu la def Atlético Madrid loolu la def kon Real nelaw nañ trop président bi nelaw na Karim Benzema bu mu demee ci la waroon uti attaquant bu xam ne ni tey bu ñëwee dina def différence Harry Kane waru leen rëcc dem ngeen ci mappe sottiwul mais am ngeen temps avant saison bi di ubbi ngeen ut attaquant lu point boo xam ne ni buteur lay doon ndax buteur ngeen soxla indi ngeen attaquant boo xam ne ni tey benn affaire moo ko manqué mooy confiance soit da koy génnee deuxième bitam walla day nekk remplaçant il faut ñu may ko confiance pour mu mun a gën a nekk ci confiance. te nag marché bi na mais réalité yi dañ ko jëkku Madrid def mu mu te tamit euh, jeune Rodrigo mu nekk xale mu jeune mais tey bu wax si Karim Benzema bu mu ah Rodrigo am na lu wàññeeku ci moom Vinicius bu mu Rodrigo am na lu ci football kon il faut Real saison des ligue des champions yi coupe yi ngi effectif bu bu bu tenir lool du yomb ndax bo xolé tay Real Madrid blessé yi bari nañu bo pare amuñu effectif bu bu bu mat lool mën na sonal ci saison bi mais aussi dina sonal ligue des champions mais aussi dina ren nag Real dina métti lool ci moom ndax ba léegi équipe bi des na équipe bi des na te président bi mu ngi seetaan te boo xoolee match bu diggante ñoom ak Atlético Madrid Atlético Madrid défensivement moo ko gën a défendre boo xoolee offensivement Atlético Madrid moo gën a wane boppam moo tax dañuy dugal facilement Griezmann am nañu buteur lañ à tout moment day def différence Morata tamit du bàyyi mu sedd. kon il faut nga am ay défenseurs yu costaud défenseurs yoo xam ne du ñu may dara loolu moo manqué Real Madrid tey marché bi nag neex na ñoom ñaar ñëpp a joué Real jéem nañu essayé nag de Kroos nag siggil na leen ndax am na benn bu mu for mu dugal ko mu nekk lu baax si Real Madrid boo xam ne ni mu ngi soog a jël defetam ci championnat ci début championnat bi mu ngi soog a jël défaite mu nekk première défaite am ci championnat mu nekk luñ leen indiloon tey ci diggante Atlético Madrid ak Real Madrid 3 buts à 1 la Atlético Madrid dóor Real Madrid man la nag Alseny Alamuta Sport bu leen di fàttee nag di abonné wu ci chaîne bi may ko doole man maa ngi fi pour yéen maa ngi fi pour amateurs yi bu leen di fàtte di abonné wu ci chaîne